aujourd'hui euh, Benno Bokk Yaakaar defee président Macky Sall nekku fi gis naa muy def euh, muy passer des appels euh, à Tamba Sidiki Kaba euh, daf ko haut mu wax ak militants yi euh, def na ko à à Kaffrine euh, seen situation parti bi mu mel ni dafa leerul je vois Amadou Mame Diop aux, aux avant-postes je vois aussi Abdoulaye Daouda Diallo Macky Sall tey tu non maa ngi lay gis mais je veux dire je parle est-ce que Macky Sall dafa jël parti bi confié ko Abdoulaye Daouda Diallo ak maam Mame Diop. Eh non non mais lu tax boole woo mu ci lu tax boole woo ci Moussa Balde non lu tax boole woo ci Abdoulaye Diouf Sarr le président n'a confié le parti à personne. mais secrétaire exécutif bi dafa waxoon mais dafa ne je reste le président du parti dina loolu waxul loolu waxul loolu xam nga aussi am na ñu bëgg a trafiquer le président waxul loolu. li li mu njëkk a loolu c'est les élections que après dana def un comité moom cité ñenn ñu nga xam ne mën nañ cee nekk te parewul sax li mu doon cité ci cité nee na way comité boobu ku mel ni Amadou Mame Diop ku mel ni Abdoulaye Daouda Diallo ku mel ni Mamour Saleh après terminé wul cité mais bi muy dem li li ñu war a retenir bu mujj communiqué bu mu def mooy je reste le président du parti te congrès moo ko falaat fi président du parti donc beneen congrès rek moo ko mën a dindi ou bien moom mu démissionné congrès amul démissionné donc président mooy président du parti ba léegi nag. parti nag bu perte pouvoir mais nit ñi maa ngi dégg xam nga il faut aussi suñu parti ak suñu coalition suñu am solidarité waaye nga perte pouvoir yi ñun waaw ñi ñi président joxoon ay avantages ñu joxoon ay place nañ dem wax mais bu wax jotee ñu wax mais dafa am moment boo xam ne aussi dangay ngay déglu askan bi da ngay déglu ñu askan wi nga déglu nguur gi bees gi nga déglu nga gis actes yuy posé doo tëb rek di wax lu la neex tey may mun a bi ma amee prétexte ñëw naa wax fii amul kenn ku ragal dara loolu yàlla la place bu président ñëwee noonu léegi tey daakaa am te président doon dem parce que euh, je suis heureux aussi que président Bassirou Diomaye Faye perpétue une tradition bu nga xam ne président Macky Sall moo ko instauré parce que daakaa de Médina Gounass président la Macky Sall moo nekk premier président de la République bu fa ñëw teg tànk euh, je moo ma ne kontaan naa ci acte boobu Bassirou Diomaye Faye perpétué mais léegi nekkatuñ gouvernement comme ni fa PDS demee PDS dem na fa le vendredi xaw ma le jeudi PDS dem na fa avant ñu ñu fay dem yeneen parti dem nañ fa comme nu ñuy demee partout président Macky Sall yabal ñu ne délégation bi moo tànn ne nii nii ak ñii nañ bokk délégation bi te mënoo tànn ñëpp beneen délégation buy dem euh, euh, Kaolack dana nekk ñeneen beneen délégation bu war a dem Touba ou bien ou bien war a dem euh, Alwar dana nekkat ñeneen noonu lay demee mu tànn délégation boobu mu ne nañ dem ko demal Medina mu ne bu ngeen dellu nag ngeen jaaral ma Tamba. ngeen félicité ma militant ak responsable yi su ngeen mënee jàll ba Kolda ngeen félicité ma waa Kolda la plupart aussi si région de Medina ci bi nga xam ne Medina foofu la nekk ñoom dañuy dem di Dakar ba ñu ñaan nañ ko différé mu ne su ngeen di bisi ngeen ñëw Kaffrine aussi remercier ma militant yi loolu la ñu def et loolu ça a montré un parti qui est là ku gis la mobilisation bi ñu am Tamba gis la mobilisation bi ñu am Kaffrine sans aucun moyen militants yi jógee de partout am nañu militants sax yu joylu joytu ni ñu leen convoqué rafetul ou bien gisuñ convocation ou bien dañ ko dañ ko yéex a convoqué man mi sama bopp nekkuma woon ci réew mi dama arrêté sama voyage ñibbisi pour def mission boobu président wax ñu nañ dem Médina Gounass ma aussi ma convoqué man maa ngi ñëwaat Kaffrine Sénégal samedi samedi ma jël oto ànd ak ñoom dem Médina Gounass ñëw dimanche def suñu assemblée générale Kaffrine moo tax benn responsable aw ma jotu téléphoné ñun ñëpp seen engagement wala seen responsabilité c'est pour montrer un parti debout ñun ñëpp ñu nekk une même famille maintenant l'avenir avenir bi ku ci nekk acte ñuy posé acte ñuy posé nag ku ci nekk dana positionné wax sa position yow da ngay rester dans APR mais da ngay créer sa sa parti wala sa mouvement waaw xam nga xam nga man su ma naree am na ñu may dégg ñuy wax loolu parce que Sénégal nag looy cultivateur rek ñu wax waaye Abdoulaye Sow dafa bëgg a créer mouvement Abdoulaye Sow man lu ma ñemee lu ma ñemee wut amul. su ma waree man bi may jël jël jóge PDS may mun a yaa ngi fi nekkoon journaliste ak maa ngi ñoom Abdou Khafor ñu may déglu ñoom Abdou Aziz Diop ñoom la Keita ce sont mes amis Aliou Sow ce bi may jóge PDS laajuma kenn avis damaa dem ci président de la République ah, boobu ba président Abdoulaye Wade ma ne ko président si sama compagnonnage ak tey laa mu dàkk tu le premier militant bu waaj a démissionné ñëw ba ci man wax ma ko toogal si suuf ma toog si suuf mu ne ma dinaa la ñaanal fi nga jëm yal na la gënal fi nga jóge kon ma assumer sumay responsabilité su ma bëggoon créer mouvement su ma bëggoon créer parti ñi créer parti fii ak mouvement dañ maa gën ëppuñ ma base ëppuñ ma jaar jaar ëppuñ ma xam-xamu réew mais man maa décidé man maa décidé man maa décidé man maa décidé nekk ci APR nekk sous l'autorité et sou le leadership du président Macky Sall ko décidé Et la posture de la, la place et la posture de Amadouba dans dans Benno euh, est-ce que parce que ce qui est ce qui est est constant c'est que Amadouba ay ñañam ñoo ko njëkk a wor. Ah, ay ñoñam ñoo ko wor malgré tout il se retrouve avec pour cent. est-ce que yow Ablaye Sow da ngay souhaiter ngeen continuer avec lui. Euh, li nga xam ne moom mooy euh, le parcours politique. Euh, wala est-ce que jàpp nga ne Amadou Ba war na mën a jël ay responsabilités am samp. xam nga man man man je suis un homme politique un homme politique c'est l'addition ou ou bu fekkee bëgg nga mot exponentiel nga def la multiplication donc ànd ak Amadou Ba ñu rester dans une dans même parti ak ñun ñëpp ñu xeexandoo pour reconquérir le pouvoir euh, loolu laa am comme souhait mais Amadou Ba aussi xam nga man personnellement tout le monde sait que je n'ai aucun problème ak Amadou Ba. j'ai assumé mon compagnonnage avec lui ça m'a coûté Claire j'ai assumé ça mon compagnonnage oui ça m'a parce que, que ah, y a certains qui m'ont soupçonné ñu ne waaye dafa ci Amadou la dem dafa bàyyi Macky am na ñu xam ne yàq rek mais xamuñu woon la profondeur de ma relation avec le président il y a beaucoup de gens hein, qui sont allés raconter au président waaye ouais, y a un petit groupe constitué autour de Amadou Ba Amadou Ba la ñu gëm man Amadou xam na moom mooy déglu amuñu man moom amuñ benn problème personnel c'est quelqu'un que je respecte am na ko en tout cas gisuma ko li koy waxal li nga xam ne maa wax naa ko ko ci lu leer ah, mais lu gëlal ñu ñun àndul même parti et wax naa aussi man ah, ci processus yëpp am na lu ma ci remettre en cause am na lu ma ci xalaat wax naa ko ci biir parti bi wax naa ko ci assemblée générale Kaffrine donc foofu laa yem donc Amadou mu ñu ak ñëpp waxuma Amadou rek mais ñëpp ñoom Aly Ngouille xam suñu suñu grand la ñu suñu nit ñu baax am moment ñu dem euh, d' accord ñu si procédure ñu responsabilité ñu Mambo Diaw ñun ñëpp ñu retrouver autour notre parti et autour leadership de Macky Sall ce une bonne chose. est ce une bonne chose mais politique nag parfois l' addition pas. l' addition pas n' est pas toujours n' a pas toujours. est ce que Amadou Ba politiquement mën na leen. l' addition n' a pas toujours mën na wóoluwaat waa li ñu ko def oui doit en décider et là c'est lui seul qui peut en décider mais bu ko décider tamit mu décider bokk ñu togg ci même partie xayrun bu décider jël ses responsabilités mais il n'y a ce n'est pas exclu qu'on se retrouve demain tu as vu ceux qui sont arrivés au pouvoir comment ils sont arrivés au pouvoir donc il ne faut pas la l'avenir moo tax ñu nga xam ne ñoo àndoon ci ñëpp nañu nañu rafetal suñu diggante parce que demain on aura on aura envie de se retrouver et donc on aura envie de day fekk ñu rafetal tey moo tax ñu bëri nañu moytu yenn wax yi yenn déclaration yi yenn condamnation yi ce qui s'est passé on ne peut plus revenir sur l'histoire ce qui s'est passé s'est passé le 24 mars tout ce tout ce qui est passé s'est passé lu ñu gis ak lu ñu xam ak lu ñu xamul. Euh. xam nga nee naa la man am na yu ma metti man ci élection. am nañu mu métti. mais est-ce que dinaa jàpp rek yu métti yooyu def ko ci kanam man pléni Kaffrine depuis bi ma ñëwee ci APR man maa nekk plénipotentiaire dama yeew rek gis ma nekkatuma plénipotentiaire mais loolu est-ce que mën ni am na lu xew mais li ko xew ñu ko def a été organisée loolu nga nekk un mauvais perdant moi j'ai perdu je faut pas même faut pas perdant donc laisse-moi assumer cette cette défaite je l'assume et je regarde les causes de cette défaite et je continue de de me remettre en cause je continue de remettre en cause mon entourage de continuer à remettre en, cause ma façon de faire la politique parce que au bout de huit ans loolu dox na wax nga ko sànq on a gagné toutes les élections man avant may ñëw sax les gens ont gagné en en 2014 encore que le Benno n'avait pas gagné c'est Wilane qui a gagné Benno Siggil c'est avec euh, euh, Benno ak mais à partir de 2016 au référendum où on a été ensemble ba 2022 toutes les élections c'est pas moins de 60 70 pour cent. mais mais donc on aujourd'hui qu'on perd on doit se remettre en cause et puis avancer.